ko daal di koy defal ah, mu daal di doon lu tiis lool moom Nabou Leye nag ah, mu mel ni sax ñi nga xamante ne ñoom la fa daal di fekk rek ah, daal di koy dalal ba noppi rek daal di koy sax wax rek ne prison jombul kenn doon na rek nattu goo xamante ne mën na dal ku nekk waaye nag guddeem gu njëkk daanaka yàgg na lool ca moom ci rek prison ba nga xamante ne daanaka mu nga fa jamono ji ca tamit mu mel ni ñi nga xamante ni sax daanaka moom moo di service social daal nañ koy rek. dalal waxtaan ak moom ci rek la nga xamante ne moom moo di règlement intérieur ba daal di am rek ca prison ba lépp rek ñu daal di ko koy xamal laata rek a ñu koy jox mu daal di rek passé coup de fil woote wax ak famiyam mu daal di doon guddeem gu njëkk rek nga xamante ne daanaka amal na ko foofa ca prison ba moom Nabou Leye bokk rek ca ñi nga xamante ne jàpp nañ ne la ñu daal di tëgg rek ba rey kii di Aziz Dabala ak Wali moom loxoom génn ci ñu sax ci faat bakkan yooyu nga xamante ne rek daanaka nemmeeku nañ ko mu daal di bëri lool ci Sénégal saa yi ñu déggee information rek daanaka du jeex a te dégguñu rek jam nañu nit wala faat nañu kenn rek mu doon loo xamante ni daanaka tiis na loolu takk deree nag takku ba dëgër daal di rek taxaw tem ngir daal di jëlee fii lii di insécurité bokk na rek ca la nga xamante ni sax daanaka campagne de sécurisation bañ doon def rek ca guddi ga daal di rek teg loxo lu individu ku ca nekk rek ak lañ la daal di jàppee rek mu daal di doon loo xamante ne daanaka ñoom takk der rek daal nañ koy amal ngir rek gën a sàmmaat kaaraange askan wi teg loxo rek lu toll ci quatre cent deux personnes. ñu des sax ca police nationale mu mel ni ni ki démb nag daal nañ fay andi rek ab coppite gu ñu daal di nemmeeku rek ñu ngay gis ca fa nga xamante ni sax daanaka moom moo di sûreté urbaine ba Baara Sangaré daal di nekkoon rek mu mel ni daal nañ keneen naka noonu ah, division des investigations criminelles ah, Dramé Sarr nekkoon ca bopp mu mel ni moom tamit ah, jëlee nañ ko fa rek mu doon coppite goo xamante ne rek daanaka nemmeeku nañ ko ca police nationale muy division des investigations criminelles ak sûreté urbaine. bu ñu jógee ci loolu ñu daal di rek wax ca mariage bu yaa awa rasul ni ki démb mu mel ni nag ka ko daal di takk daal nañu rek dévoilé turam mu daal di doon basketteur nekk ca diwaanu États-Unis di wuyoo ci Tamsir Samb moom moo daal di takk rek i di yaawa ñu ngay fës rek yenn ci ay cadeau yoo xamante ni sax daanaka jot na ko bokk na ca koppar gu bëri ñu xayma sax ne toll na ci treize million ak la nga xamante ne moom moo di Mercedes mu daal di doon rek ay teraanga yu bëri yoo xamante ne rek daanaka moom jot na ko ci bile mariage Tamsir Samb nag moom mooy boroom këram mu daal di doon amour d'enfant sax lañ ko mën a duppee ndax ñoom ñaar yàggoon nañu nekk loolu naka noonu nag gannaaw ñu daal di séparé rek. ca nekk daal di jël sa yoonu bopp ah, ba tax na nga xamante ne ah, noonu la yaa awa di amee jëkkër ak yi nga xamante ni sax daanaka ah, jot naa xew wax ci diggante bi rek mu mel ni ñoom ñaara yàlla boolewaat leen rek muy Tamsir Samb ak kii di yaa awa Rasoul ni démb nag ñu doon amal seenu mariage ñu ngay gis rek belle image nga xamante ne daal nañ koy partager rek ni ki démb mu doon de très belle photo rek du mariage de yaa awa Rasoul image moom la ñuy gis noonu rek moom yaa awa Rasoul toute belle toute ravissante influenceuse bi daal di rek marié wu ni ki démb ñu ñaanalaat ko rek yàlla defal ko jàmm ci sëy bi. kii di Amina Poté moom ba léegi rek mënut a supporter Aziz Davala ma nga xamante ne rek faat nañ ko takk nga xamante ni sax daanaka moom moo di nabulay ñu jàpp ne sax ne lépp moom moo ko daal di tëgg rek mu doon loo xamante ne métti na loolu animatrice bu télévision Futur Média bi waral nag ba moom mu daal di defub live rek di dal sax ca nañ jëf ju ñaaw ji rek mu daal di doon loo xamante ne moom jàpp na ne ab en la rek goo xamante ne mu ngi ci xolu nit ba ci sax dem bay faat rek bakkan mu daal di doon mbir yu métti yoo xamante ne rek daanaka kii di Aziz Dabala daal na koy dund rek gannaaw poignarde yu bëri yi nga xamante ne def nañ ko ko rek moom ak Waly moom Amina Poté nag mu jàpp ne mbir ma métti na ba fa métti yam ka nga xamante ne moom moo di Aziz Davala ak ba nga xamante ne amoon na ko rek récemment ñu doon gis rek yenn ci ay clip fu ñu tourné rek gis ko ci moom mu daal di rek daanaka fecc ci yëpp ci ay clip rek mu nekk loo xamante ne rek daanaka métti na Amina Poté loolu waral mu daal di taalub live am rek di naqarlu li ni mel. le torchon brûle entre Mame Ndiaye Savon ak taskatu xabaar bi di ay Diop Fall gannaaw nag moom ay Diop Fall ak kàddu yi nga xamante ne yëkkati woon na ko rek dal ca kaw maam Ndiaye Savon ak xaalis ba nga xamante ne rek daanaka. jàpp na ne daf koy daal di pasar pasare rek ak solu yeeg yenn ci yoo xamante ne rek daanaka mu ngi koy def ci alalam ah, mu jàpp ne sax ne koo xamante ni sax yorul woon dara alal daal di koy dabla rek waaye yile kàddu ah, daal di métti loolu Mame Ndiaye Savon wala ba moom mu yàq lu mel ni xeme rek Aïssatou Diouf Fall yi ñaaw yoo xamante ne rek daanaka génn na seenub diggante ñoom ñaar mu mel ni nag jamono ji tàng na jër ci diggante Mame Ndiaye Savon ak ka nga xamante ne moom moo di taskat taskatu xabaar bii di Aïssatou Diop Fall Pendo Guissé moom la ñuy gis noonu rek mu daal di affiché wu ak ka nga xamante ne moom moo di borom këram ca màggal ga rek ah, ñu ngay gis belle image yi nga xamante ne daal nañ koy partagé rek moom nag gannaaw mu marié waat rek ah, yàggul dara gis nañu rek image yi nga xamante ne ah, moom Pendo Guissé daal na koy partagé rek mu daal di doon de très belles images Diarriatou Sow moom la ñuy gis noonu rek ñu gën ko xam ci Amileya ñu ngay gis rek belle image yi nga xamante ne daal na koy partagé très bien habillé en noir moom actrice bi ñu daal di koy ràññee bu baax waaye tamit mu bëri lool ay flowers à travers série nga xamante ne mu nga koy def rek ñu ngay gis récemment mu daal di partager de très belles photos. ñu daal di wax ca Mia Guissé ca bi di plus mu ngay dellusiwaat rek ci digganteem ak son ex mari di No bokk na rek ci kàddu yu rafet yoo xamante ne daal na koy yëkkati rek jëmal ko ca nga xamante ne moom moo di No Face ndaam sax diggante ba daal nay jeex rek waaye moom Mia gisee mu ngay wax rek ne kii di Nofees daanaka jàmm rek la ñu seq jamono ji avant tout moom moo nekk sax bàyyi doomam mu daal di doon ku mu fonk lool waaye nag doon na tamit koo xamante ne daanaka jàppale na ko ci a carrière am lool mu nekk rek ay kàddu yu rafet yoo xamante ne moom yaa gisee yëkkati na ko rek jëmal ko ca Nofees. kii di Lat Diop gannaaw mu doon décider rek génn réew mi jaaree ci AIBD mu mel ni sax dañ ko daal di woon rek ci passeport diplomatique boobu nga xamante ne yoroon na ko rek jamono jamuy doon jëwriñ ju yaram li ni mel nag ñu interdire ko sax mu daal di génn rek Sénégal waaye moom nag daal nay saisir avocat am rek ba noppi daal di adresse rek ab lettre ka nga xamante ne moom moo di jëwriñ jiñ dénk kaaraange réew mi ngir rek la nga xamante ni sax daanaka teg nañ ko ko rek daal di restreindre ay liberté am waaye tamit ay droit am ngir mu daal di circuler rek waral ba moom Lat Diop mu cee interpellé rek ministre de l' intérieur. ñu jeexalee wàllub tàggat yaram wax ca liste vingt six jours nga xamante ne kii di coach coach Aliou Cissé daal na koy rek euh, révélé ni ki tey mu ñeel rek rencontre Sénégal Burkina Faso ak Sénégal Burundi ñeel CAN mu mel ni nag moom daal na rek andi benn coppite rek ci bile lis muy El Hadj Malick Diouf doon rek arrière gauche nekk ci Slavia Prague mu daal di doon rek koo xamante ne euh, moom moo dooleeku ci list bi waaye nag Sadio Mané ak Ismail Jakobs ma nga xamante ne euh, bokk ñu woon ca liste bee passé mu mel ni duggaat nañ rek ci liste tey ba nga xamante ne moom Aliou Cissé daal na koy rek révélé niki tey mbokk yi safoon doon ñu teewlu lii lañ leen andiloon seen acte du jour di leen ñaanal jàmm di leen wax ngeen abonné suñu chaîne bi te laal cloche notification bañ dara suñu information jërë jëf